ñu yàlla di ko gis assemblée nationale. Mm. du lu rafet. mais li gën a attirer attention yi. mais mm-hmm. dafa am loo xamante ne dafa xewoon assemblée nationale. Mm-hmm. muy euh, député euh, Massata Diack ak euh, beneen député bi Massata Samb autant pour moi Massata Samb ak Mamadou Niang ñoom mm-hmm. ñaar dañ leen fee tëjoon ndax dañu ne woon dañoo agressé woon dóor ki nga xamante ne moo di Ami Ndiaye ñii bi mm-hmm. donc mu doon affaire boo xam te ñu bëri émouvoir oon na leen ñenn ñi def ay communiqué association jigéen ñi wax ak ñu nekk mais li ñooñu laay woo tamit jamono ji ñu génne defaat communiqué ñu wax li xew démb fële ci assemblée nationale parce ñu tetee Thierno Alassane Sall bu nekkuloon benn Euh, nit bu am maîtrise musiba mën na faa am tamit si si que da koy xool sa bopp maxfuus xool ko sa bopp tey ji jigéen taxaw daggee fële ak koketam wut si la ñenn ñi ñëw di la jox xar bi di yëkkati ay kàddu di ko teg sa der mhm. di am benn comportement bi am na ñoo xamante ne ak noo munti mel boo taxawee seen kanam yëkkati sa baat mu di sa ñu dóor la met mhm. am na ñoo xam ne noonu lañ mel amuñu maîtrise mhm. boobu mais heureusement moom miy wax ñu koy wax lu nekk miy dégg lu ne mu leen di ngeen ma déglu ma wax rek wax ji jeex mu génn yi dem ñu dox si diggante ba dul woon. Mm. te mi ngi leen doon remercier sax c'est teg communiqué mi nga xam ne def na ko après. Mm. député yi nga xamante ne ñooy député yeewi askan wi. si en commençant par député Ismaïla Diallo. gisoon mu doxoon seen diggante. Birame Souleye Diop. Mm. ak député Touba bi Guy Marius Sagna y a aussi euh, Cheikh coro Mbacké mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne na dox nañ seen diggante ba am na ci koo xamante sax jël na benn kurpañ boo xam ne Thierno Alassane ko doon jox. Mm-hmm. ñu doog ko ginnaaw. Mm-hmm. loolu lan lay wane tey jii. toll nañ foo xamante ne pour man euh, waa PDS dañoo ñàkk seen sang froid. Mm, mm, mm. te il faut que ñu revenir à la raison. gis nga àddina bi yemul ci le 24 février. àddina bi yemul ci ne su ma bokkul élection damay taal dëkk bi. loolu pour man li xew dem ba assemblée nationale loolu lekk lay wundu te nag bi ma gisee tekki tekkaaral am ci ñenn warul demee noonu ñëpp dañ ko war a dénoncer ba mu jeex parce que violence physique wala violence verbale violence sur toutes ses formes ñëpp a ko war a ñaawlu mm-hmm. et liñ teg démb Thierno Alassane Sall suñ ko tegoon góor gu bari xadar wala góor gu amul benn maîtrise bi nii songante la fay am mm-hmm. parce que danaa mën ku ma ko timbax ma rimbax la ko mm-hmm. mais heureusement am na benn comportement bi am na benn mën nag dama jàpp ne fi ñu toll dañu nekk di ko defaral te rendu luñ si compte defaral Thierno Alassane Sall parce defaral Thierno Alassane ci ci jamono ji eh, nga xamante ni eh, ñu ngi waajal eh, campagne électorale foo tourné ñu naan la Thierno Thierno Thierno Thierno loolu tamit ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi defar li nga xamante ni moom moo di campagne am surtout ci wàllum mm-hmm. notoriété ak wàllum maanaam nit ñi xam ko kan mooy mm-hmm. Thierno waaw mais xam nga xam nga loolu dafay loo xamante ne ñoom mooy yaa ngi defaral nit ki sans nga rendre ci compte mm-hmm. yaa ngi defaral nit ki te bàyyiwoo ci xel loolu moo nekk di am jamono ji li loolu mooy boo xoolee ba mu dugalee réclamation bi ci wàllum Karim mhm. ba léegi dafa mel ni candidat yi Thierno Alassane Sall moo fi nekk. Mhm. Bassirou Diomaye Amadou Ba. Mhm. dafa mel ni trio boobu la nit ñi di waxtaanee. waa PDS fu ñu jógee communiqué ci Thierno Alassane la tiire. Mhm. bu ñu fa jógee ñu ne non Bassirou Diomaye nañ ko may liberté dina bokk warul bokk boo jógee ci Bassirou Diomaye nga ñëw ci ki nga xamante ne moo di Amadou Ba. Mhm. amul alliance kenn jàppale ko ñii dañ koy xeex nangam ak nangam te loolu ñiy wax si yow ñëpp dañu xam ne dafa am solo ci wàllum politique. Mhm. am na ñu bari dañ leen di jox ay stratégie defal nangam defal nangam pour nit ñi di wax ci yow wala na ban côté la ñuy waxee ci yow loolu tamit débat bu ñuy posé la mais xoolal côté bi ñuy waxee ci moom ñu ko song di ko parce que yaa ñu boole ba bokkuñu depuis un certain moment nga gis ñi nga xam te ñëpp ay homme de principe lañ wala nag ay nit yu am valeur am benn regard ci ci ay républicain la dañ toxoon a mais tiens profil Thierno Alassane Sall lu intéressant la parce que xoolal li mu soulevé débat bi ak nii ni ñu ko songee ba léegi mën na leen mën gerce droit dans mes bottes fa ma nekkoon fa laa nekk maanaam lu wàccoowul ak yoon lu wàccoo ak yoon du ma ànd ak moom yéen da ngeen wàccoo ak yoon du ma ànd ak yéen dama leen di boole aw ma ci benn intérêt donc loolu pour man démarche la boo xamante ne ñëpp ko war a saluer parce que bu fekkente nañ nekk ci démocratie nekk état de droit ñëpp dañu war a sàmmonte ba ñu respecter li nga xamante ne mooy règle yi nga xamante ne moo ñu tënk ñun ñëpp mhm. eh, Thierno Alassane Sall si loolu dox waa PDS nag eh, seen taxawaay ñëpp gis nañ ko mhm. eh, sur ce plan là vraiment damay ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ne teg nañ ko si kaw Thierno Alassane Sall et association góor ñi tamit nañ ñëw nañ jóg ñaawlu ko parce que mhm. jigéen ñi bu doon seen <laughs> mooy Maribatu association Maribatu mais bon bii nekkoon ci kaa boobu moom décédé na waaw waaw moom décédé na yàlla yàlla jël na yàlla na ko yàlla xaare àjjana amiin mm-hmm. euh, d'accord d'accord mais tamit taxawaay bi euh, waa Bennoo am ci ci mbir mi en tant que ñoo xam ne dañoo euh, accusé seen candidat quelque jours de l'élection ñu naan ne dañoo bëgg mu leer loolu tamit Moustapha nit ñi des nañ ko comprendre yow noo ko mën a loolu waa ni ni ni ma ko mën a expliquer mooy xam taxawaay PDS Mahfouz mais amul taxawaay bu gën a bu gën a dënk bu gën a lëndëm taxawaay PDS. Hmm. noo mënee comprendre ñoom ba seen biir sax affaire bi daf leen diviser euh, question bi parce que démb boo suivre ay député yu bokk ci biir euh, Benno Bokk Yaakaar. Hmm. taxaw wax wax wax bu ñuy jeexal mu ne nañu dàqi élection yi. Hmm. ngay dégg ci nañ dàqi élection yi. député Benno yi ah? député Benno yi. nga dégg keneen ku ñëw wax wax ba ci biir mu ne dàqi élection du fi am. comme par exemple mën naa citer kaw Aïda Sow Diawara mhm. mu taxaw mu ne Amadou Ba mooy sunu candidat ba muy jeexal sax daanaka da doon way Amadou Ba mhm. di kañ Amadou Ba di ko añ mu ne amee mhm. gis nga bi naan dàq élection du fi amee ne selaw di ko seetaan est-ce que yaa ngi comprendre foofu donc ci biir profil député da xam député yi xam ne ñoo jege Amadou Ba ak député yi jegewul Amadou Ba député yi jege Amadou Ba xool ko ba ci commission bi ñu ko tegee ni mu mel Abdou Mbow mi ci biir commission bi Abdou Mbow boo ko dàqee mu daw làqu ci ginnaaw Abdoulaye Daouda Diallo. waaw Abdoulaye moo bëggoon place bi Amadou Ba toog tey jii. Mhm. donc da comprendre jeu xeex ba Macky Sall tànnoon daf leen naa topp ba biir assemblée nationale mhm. jamono ji léegi nag pour ñu porter ko à visage découvert dafay yomb dafay jafe léegi dañuy làqatu ci ginnaaw PDS di ko xamb di ko buux PDS noo mënee comprendre 26 députés la am. Mhm. li mu bëgg su neexuloon bennoo du jàll. nan la mën a retrouver 26 boo ko boo ko boolee 83 yi nga xamante ne benno benn benn benno am na ko dafay daal di am li mu bëgg. Mhm. donc loolu tey jii moo ko may li mu am. te benno jeu bi ñu nekk di jouer tey jii sénégalais yëpp dañ koo comprendre parce que am nañ jafe-jafe ak seen candidat. Mhm. ñu dem ba ci biir ñu ne bëggatuñu candidat bi léegi nañu dàq élection yi pour may ñu ñu rocc suñu candidat dugal keneen. loolu mhm. kese mooy jeu bi te PDS boo xoolee ba ci biir ba ñuy ñëw jaay ñu woon nit ñi dañu ne woon nit ñi. Euh, dañoo soxla ñu càmbar juge nañu liggéeyee fële dafa am mhm. nañu def ba génnee candidature Karim Wade parce que dafa am corruption ki ni mel mhm. ñu dem ba biir assemblée nationale ci résolution beeg yëpp gars yi ñëw expliqué expliqué ba naan léegi nañu dàq élection yi nga dégg ñoom seen président groupe parlementaire ne ñu dañoo war a dàq élection yi keneen jëlaat kat ne nañ dàq élection yi pourquoi parce que Karim Wade mi nekk doa nee na nañu dàq élection yi pour ñu may ñu mën a bokk maanaam su ma bokkul élection du fi am mhm. mais léegi loolu est-ce que sénégalais yi ñoom ñoom ñuy jël décision yi noonu est-ce que respecté nañ sénégalais yi ndax sénégalais yi ñooy fal. Mhm. ñoom ñooy folli ñoom ñooy tànn ñoom ñoo am volonté populaire bi léegi yéen ngeen toog nekk ay député ñu yebal leen askan wa ngeen war a xool seen askan lu ñu bëgg lan lañu lan la ñu soxla jamono ji defoo leen ko ngeen di xool seen i intérêt personnel parce que sama leader bokkul parce que sama candidat neexatuma nañu dàqi yi kan moo gën a égoïste ñooñu. nañu waxante dëgg rek. Mhm. yéen sénégalais ñun nous sommes dix huit millions de sénégalais yéen ñu yebaleen ci pencum ndaw réew ma ngeen war fa toogal intérêt sénégalais non seulement. teewoo leen ko mais ngeen nekk fa di xeex ak di xëccoo yoo xam ne ay intérêt la mhm. maanaam man man su bokkul mbir mi du am mhm. nañ def tout ba sama candidat bokk donc pour man euh, ña nekk foofu noonu teg commission ba yeneen bëgg-bëgg moo leen tax a jóg mais xam nañ ne juge conseil constitutionnel duñ leen atteindre ñoom xam nañ loolu parce que procédure bi ak àpp élection yi te malheureusement mbir mi fi mu xewee dafa gàtt. que que enquête bi enquête parlementaire bi ñaata temps la mën a durer. non nee nañ 6 mois lañ am bu defee 6 mois dañ koy tas mais enquête bi mën na def 15 jours. 15 jours yoo xam ne moom lañ ci une semaine yooyu ñu lañ bët une semaine yoo xamante après seen restitution yeeg càmbar ak yooyu noonu donc 15 jours war nañu mën am li nga xamante ne mooy mooy enquête bi euh, conclusion enquête bi. bu euh, rombee vingt jour ak yu mais loolu bu weesoo léegi après dañuy dem plénière. Mm-hmm. ñu xool ndax dañ koy génnee partielle une partie wala intégrale maanaam ndax lépp la ñuy génnee ci xaaj bi wala wala tuuti rek lañ ciy génnee. Mm-hmm. loolu mooy beneen mbir mi su fekkente ne am na yoo xamante ni euh, nee nañ nañ génnee lépp ñu génnee ko suñ ko dul génnee ñu téye ko. su fekkee gis nañ ci loo xamante ni jàppal nañ ne war nañ ko mën a jox yóbbu ci juge ñu euh, procureur mu jox ko juge mu bi information judiciaire hmm. su fekkente ne loolu amul ba fi ñu toll nii suba suba suba fekkente ne ubbi nañ benn enquête procureur bu jógoon ubbi jël dossier bi. Mhm. Euh, ñu jox ko benn juge daal ak nu ñu koy waxatee commission d' parlementaire dafay daal taxaw dañ koy daal di ci saa si parce que loolu moo ko taxoon naa jóg onze lañ lànk ne duñ ci siéger mhm. parce que dañu gis ne ñii. la leen taxoon naa jóg dañoo làqatu ci ginnaaw ne dàqi élection yi moo nekk ci ginnaaw moo tax waaye Yewwi Askan Wi mujjee leen a wan ne ñun commission boobu duñ ci dugg parce que complot la boo xam ne présidentielle yi. amul amul amul dàq élection bëgg bëri bañ bañ. bëri c'est euh, euh, dee yi moom daanaka sànni nañ ko ba noppi. Mhm. il faut ñu euh, dem ci ay élection à date échue. Mhm. mais li xew assemblée nationale ak jaxasoo gi nga xamante ni député benn Bokk Yaakaar yi jaxasoo nañu ko est-ce que du loolu moom moo taxoon waa benn Bokk Yaakaar wala Amadou Ba déposé wul woon ci parrainage des des élus parrainage maanaam des députés muy parrainage parlementaire bi est-ce que loolu moom loolu. loolu loolu la njort googu la amoon moo tax déposé wu. nga soulevé boo xam ne ñu bëri fàtte woon nañ ko euh, ci ci ci question boobu nga posé ñu bëri fàtte woon nañ ko. parce que mhm. Amadou bi mu jógee mu xàll ji ci ya. ñu bëri dañ mhm. doon posé ay questions ñu naan Amadou Ba mii moom moom yow nooy amee ay député nga am 83 xanaa 83 bi di leen wóolu. Mhm. wala nangam ak nangam mu dem jëli ji ay élu nga xam non seulement moom donc moo ko moo ko fay mën a indi. waaye tamit bu élu yu bu bu weesoo tamit. Euh, député maanaam teg na leen na lee parce que boobu euh, fronde bi wala mi ngi doon mi ngi doon am doole biir assemblée nationale. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu bëri ñi ngi fa te ànduñu ak Amadou Ba. boo gisee seen discours sax duñ ko ci tudd. noo mënee comprendre tey jii yow assemblée nationale li ñu juge ñu attaqué Macky Sall moo leen tànn. Mm-hmm. nga bàyyi fa ka leen tànn nga dem songe ji koo mais bu doon système la dama naan Amadou du acteur du du du du du titulaire man personnellement gëw ma loolu hmm. mënul nekk parce que non waxante dëgg hmm. da naan gis ku nekk opposition bi attaqué nga fi gis bàyyi fa ka war a attaqué dem attaqué ci nga xamante moo di moo di moo di Amadou hmm. nga xamante kon c'est kan moo nekk ci ginnaaw attaque yi waa PDS di attaqué Amadou Ba loolu mooy question bi ñu war a posé beneen mbir man dama gëm ne li ñu tànk yi ñu jël fi ñu toll pour reporter élection présidentielle la est-ce que xam nga ne assemblée nationale dara du fa xew te neexul Macky Sall. Mhm. dara du fa xew te neexul Macky Sall. non li kay ni moom la neex. merci le fait que ñu jàpp ñu jàpp bés bi teg ko fast track ba yëpp moom la neex. moo tax man damay damay du ma d'accord ak ñi naan non président Macky Sall d'accord ci ñi dañuy def ni non non non non bu ci d'accord woon premier jour ba ko waa PDS indee lay leen lay woo président maam Diop ne ko mm. maam ñii indi nañ fi lii ay caaxaana teg tegle leen fële bu ko fi benn député voté duñ ko voté parce que ñëpp xam nañ diggante bi am ci exécutif bi. ak mm. groupe Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. bañ nañ ko ba liste député yi euh, palais lay jóge indi ko député wan leen ko ni kii mooy président kii mooy vice président deux kii moo stop kii moo stop kii leen ko les yeux fermés ñoom ñëpp ñu sëgg voté ko mm-hmm. kon la lu lu fay xew lu neex tey ji président Macky Sall mënuñu teg lu doy ni commission d' parlementaire mu teg la ay tànkam teg la ay loxoom leen sama yoon nekku si mënul ne mm-hmm. parce que xam na fi réew mi toll xam na mbir fu mu toll mm-hmm. maintenant ñan ñoo nekk di liggéey à ñu reporter beneen président na jël article euh, cinquante deux bi xaw ma su ko defee mu am plénitude bi pouvoir yeeg def lu ko neex ak macha ci macha ca ban crise dañuy dund Mahfouz assemblée nationale liggéeyul. conseil constitutionnel deful lu ñu war jébbal lu ñu war. tribunaux yi boo demee attewuñu ban crise moo fi am. lu fi lu fi lu tax euh, euh, ñu reporter élection dal laa fi gisul man. mais mais dafay amul. léegi na xam nga lu ñu bëgg nag. Mm-hmm. mooy dafa dafa dafa am lu ñuy wax les rentiers d la tension ñoom dañuy jéem a dundal tension bi. Mm-hmm. de toog naan l'heure est grave le mal est profond mm. li ñu nekk di gis bu ñu demee ba yóbbu ay juge ñu def euh, commission d'enquête parlementaire donc foofu confiance amatu fa mm-hmm. te fu confiance amatul élection mënatu fa am non da nga naan am na ñoo xamante ne ñoo bëgg entretenir benn situation semer benn flou ci bopp nit ñi après ñu jafandiku ci ne président daxal élection yi te mm-hmm. buñ ko daxee tey jii ban cas figure la dajal kan mooy jiite mm-hmm. pour ban àpp te le deux ku nekk mën na am sañ-sañ kan lañ fay indi ban président lañ fay teg mais léegi peuple bi moom loolu lépp ngeen bëgg ko koo xañ naka yow léegi duñ la joxati nga tànn ba bàyyatuñ la nga dem voté ji léegi bàyyi ñu dàqi élection yi pourquoi parce que Karim Wade bokkul. Mm. parce que dañoo recalé x y z te am nañ vingt. mais au moins ñu respecté vingt ñi nga xamante ne tey jii commencé nañ ñenn ñi investir nañ jënd seen oto commencé nañ ci def carburant. Mm-hmm. ñenn ñi def nañ amoo leen candidat et pourtant situation bi Khalifa Sall ne tollu woon na fa. Mhm. moom Karim Wade mi tollu woon na fa. mais lan moo waral tey jii ñoom PDS mënuñoo wëlbatiku ñu xoolaat seen bopp. bëgg saboter bëgg saboter euh, processus bi. bëgg saboter processus électoral bi. Mhm. ci loo xamante ne teguñu ko fenn. Mhm. président Macky Sall di leen seetaan mais nag je pense que euh, ñi ko bëgg dëgg. buñ ko jéem a dugal ci mbir rapport élection. Hmm? non ñi ko bëgg buñ ko ci dugal. non buñ ko ci dugal te loolu yaakaar naa ne nag képp ki nekk ci société civile bi ak képp koo xamante ne républicain nga mhm. war nga jóg taxaw nga artu parce que ñii caaxaanuñu de nit ñi dañoo nekk di kaf rek yaa ngi dégg dem ñenn ñi commencé di ruuma naan le président va prendre la parole d'ici xaw ma ñaan président lu mu wax naan président dinañ mhm. koy sànni hmm? lu muy wax bon ñooñ di wax loolu mooy ñaan dañuy reporter élection yi cest à ay information yi ñuy sànni crise amu fii nañu organiser élection yi ci ci date bi ñu jàpp le vingt cinq février ku gagné ñu jox la réew mi hmm. looluy dëgg ne mënuñu ñoom mënuñu nekk ci nguur gi pendant douze ans après bëgg ñu jeexal war a dem bëgg ñoo foowee bëgg ñu foowee lañuy hmm. dem ay ci élection bu fekkee ñoom ñoo gagné ñu joxaat leen réew mi ko bu fekkente ne keneen ak gagné ñu jox réew mi ko mu mu mu mu geere ko hmm. loolu moom mooy dëgg euh, plainte bi nga xamante ni Thierno Alassane Sall dugal na ko fan la mën a mujj dina ko dugal neen dina ko dugal en tout cas. lan la ma lan la mën a jur. mais dina ko dugal mais jeune ne pense pas mu am benn. du am benn effet wala impact du benn du benn impact bi yaakaaruma ko personnellement. yaakaaruma parce que boo gisee euh, moom mi ko dugal déjà ñi mu ko dugalal ak ñële daanaka ñoo ñoo ñoo ñoo bokkandoo. Hmm. donc déjà bu ñu demoon ba tool si war a lever immunité parlementaire yaakaaruma ñu lever ko. Hmm. mooy ñële nga xamante ne mooy euh, waa Benno bi ak waa. waa PDS léegi ay ay doomu nday ay doo ay ay gaañ lañu léegi ñoo far hmm. donc loolu benn mbir la beneen mbir tamit ak temps bi nga xamante ne tamit yooyu yëpp xam nga ni bu bindee plainte bi balaa mbir mi di avancé ak yooyu moom il ci biir euh, campagne électorale bi après campagne bi ñaa ngi wax ci coowal président bu bees bi xaar hmm. résultat ak yu ni mel donc dinañ nekk ci yeneen euh, mbir yoo xamante ne dina euh, yaakaaruma ak procédure yi mu ñu baral ko benn baral boor surtout bu fekkente ne Thierno Alassane Sall la con la la concerné. Hmm. yaakaaruma ñu accélérer mbir mi parce que li mu def neexu leen ñoom waa PDS tamit parce que Karim bokkoon na si ñi nga xamante ne euh, mën nañ ne euh, amoon nañ yaakaar ne bu réew mi dalee seen loxo mën na tane si ñoom. Hmm. parce que dañ naan famille libérale bi mooy continuer.

Amadou Ba déjà mi ngi am problème quand même mm-hmm. Idrissa Seck il peine à sortir la tête de l'eau mm-hmm. problème am am na foofu tamit mm-hmm. donc amuñu kenn koo xamante ne am na benn ndëgërlaay boo xamante ne am nañ certitude ne bu ñu demee élection mën na gagner élection yi donc li leen di dese ak li ñuy am rek mooy dàq élection yi en attendant ñu organiser wu defarwaat et li may li ma li ma li may li may bëgg a préciser waat foofu rek mooy bu ñu dàqoon élection yi fi ñu toll nii buñ ko dàqaati bu ñëwaatee day gën a ñaaw sax si ñoom. Mm. parce que ñaari mer la nit ñi di mere. si maanaam dañoo tollu si yéen ngeen war ñoo abal ngeen lànk puusaat ko dañuy boole ñaari mer sotti leen ko. te buñ moytul dinañ am ba dem élection boo xamante ne di nga gis président koo xamante ne candidat mouvance présidentielle bi am score boo xam ne da nga naan lii mën a amee. Mm. parce que ñoom seen biir dimbali déjà ñu ngi koy xeex te moom il est conscient que ne dañ may xeex parce que li xew assemblée nationale démb nee naa la discours benn waa benn bu jël kàddu rek. boo dégloo di nga xam fan la fan fan fan la jëmale mm-hmm, kàddoom ak fu mu jëm mm-hmm, mm-hmm. bu dee Amadou Ba la àndal bu ñëwee balaa moo def ñaari njàpp ñu di nga dégg mu ne ñun Amadou Ba mooy suñu candidat ñun Amadou Ba la moom le président joxoon nañu xool comme lañ ci di nga gis ku ñëw wax yoon nañ def ne nañ def ne te amoon na fi ay temps mooy bi Macky Sall euh, nekkee woon ci diwu deuxième wala bi mu nekkee ci nguur gi ku ñëw toog premier mot bi nga moo bi nga njëkk a génne Macky Sall la président Macky Sall mooy suñu candidat hmm. mooy jamono ñu daan jaay deuxième quinquennat daan deuxième quinquennat Macky Sall wutaatal bu la neexee nga dem deuxième quinquennat mooy jamono ñu doon sonal deuxième hmm, hmm, quinquennat est-ce que Amadou Ba gis nga même cas de figure bu ni mel cest à ñoom lan la ragal laa xamul est dañu am sondage xam ne leen wan ne Amadou Ba bu demee dañ koy dóor yàlla rek a xam est dañu xool terrain bi xool xoolaat xam ne Amadou Ba pour mu jàll premier tour commencé bëgg dellu ginnaaw mais fi ñu a xam mooy béy wëy na lu nekk dafa am temps mm-hmm. lu nekk dafa am temps am ba tax na boo bëggee dellu ginnaaw si yenn si yenn jamono yi ak yenn situation yi non seulement manque de respect lay doon à l'endroit de la population sénégalaise. Mm-hmm. mais tamit da ñu dugal ci benn confusion boo xam ne Sénégal musu koo xam. te Sénégalais yi sax ñoo ko dul nangu. Mm-hmm. c'est parce que c'est pas parce que Karim Wade mënul bokk ci élection yi euh, mais mais yow li liir bi liir bëgg a ñu foofu Sénégal. résumé ko ci Karim parce que Karim bokkul dañu war a mm-hmm. dañu war a euh, euh, suñu élection élection yi kenn du ko fi reporter dañu koy amal le 25 février ki gagné ñu jox ko yi mu doxal Mhm. mu jeex mais xam nga ku mënti doon nag dañ te ku mënti gagné ñu jox mu doxal jeex na ñu ñu ñu ñu baal ma ci kàddu gi sax mais man ba ma jàngatee communiqué démb Karim bi dama Karim dafa manqué respecte pas naa léegi damay yow ñi def processus gisuñ la hmm. ñu dem pré campagne gisuñ la hmm. bu ñuy déposé parrainage gisuñ la ñu génnee rek nga taxaw ne léegi. ñu génne la ñëwuloo ñu génne la ñëwuloo kenn gisu la nga activé say député ñu teg commission par enquête parlementaire nga jóg tàccu ne gañe naa léegi bi des mooy ma gañewaat mais moom moo ñu moom moo ñu moom léegi moom doo lay toog di wax li am ci dëkk bi di décider kon nañ jox réew mi Karim benn yoon mu jiite man de su fekkee dañoo dàq élection ndax Karim Wade ah. kon xam nga nu ñu def nañ jëli Karim jox ko mu dem jiite ji mu remplacer Macky benn yoon quoi waaw ah, parce que su fekkee dafa toog doo hmm. bokkul am pouvoir boobu am doole boobu noonu nañ ko jëlee doowaa mu ñëw jiite ñu mhm. c'est aussi simple que ça parce que su boobaa moom mën naa ne ñëpp fayir nañu nañ jox Karim mu jiite ñu parce mhm. def moo tax ma jàpp ne benn faux débat la woon mhm. mais gisee ni ñuy doxee ni ak tànk yi ñuy doxee il faut ñu siy wax ñu bëri dañ ko man o début jàppewoon naa ko faux débat mais tànk yi ñu nii ak ni ñuy doxee nii caaxaanuñu fi nekk la neex parce que fa mu xewee la assemblée nationale ba mu xewee wax naa la ko léegi bu neexuloon Macky du fa xewee ñi fi nekk ñoom la neex léegi nag dañuy sonde di xool mhm. di xool mais bu leen bu ñu leen ko may na ñëpp génn reeteet ko mhm. kenn du fi dàqi élection amul dàq amul dàq bëgg bëre bañ bëre léegi nag ah. ki gën ci Sénégal ñu ñaan yàlla mu jox ñu ko waaye tamit ki sénégalais tànn ñu teg ko ci réew mi mu jiite mu dem mhm. man je pense que loolu mooy loolu mooy démocratie